salaamaaleykum ah, mbokk internet yi ñu safoo di ñu seetaan ah, saa su nekk fii dakarnet.com tey nag damay am mbégte ak contentement di dalal ndaanaan koo xam ne kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal kooku mooy kan kooku mooy Oumou Sow dañ koy jox kàddu yi mu nuyoo rek après ñu dikk ak moom ci waxtaan Oumou ñu ngi leen di di la maa ngi leen di fay euh, di rafetlu seen teewaay fii ci Amazon boutique di leen jaajëfal di leen bëggee di bëggee mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan mbokku internet yi maa ngi leen di bëggee. kon euh, dégg ngeen noonu euh, mu nee na mu ngi ñuy bëggee kon dañuy def lu dul rek euh, xuus dugg ci waxtaan bi. ñu nekk tey ci weeru mbëggeel di Saint-Valentin ñu def mu def rouge noir. rouge ah, gis naa sa noir gis nga ah, gis nga man dama <laughs> anticiper rek. ko quoi. ah dama mm-hmm. anticiper rek nii. <laughs> Mm-hmm. ñu ñëwee laaj tamit. macha ah, allah mais umu kan mooy Valentine man maay madame inconnue. madame inconnue. Mm-hmm. <laughs> madame inconnue. ça veut dire euh, maanaam dama ko dëpp daal. da ko dëpp maanaam ñun daal bu ñu déggee say euh, euh, say biir wax da dañoo jaaxaan Oumou Sow moom moom moom éleesal <laughs> ko. non kuy dund si àdduna dëgg-dëgg am nga koo xam ne ne yaa ngi ànd ak moom. Mhm. mais dangay ñaan yàlla rek ci kattanam nu ko yàlla namee rek ak nu mu ko bëggee rek mu defee ko ndax ñun ci programme suñ borom rek lañuy la ñuy dund gëm ko lool. Mhm. wax dëgg yàlla. mais nag Oumou sa waayu lu muy xaar ka même. ah gis la nii fekk la tey fii macha allah nga def sa rougement pour taxaw rek toog nii quoi ah. <laughs> yàlla noppi na yàlla mm. noppi na démb tey soog a ñëw xam nga bu fekkoon mosoo dégg alxayri sax ñu wax ko. Mm-hmm. waaye comme mus nga dégg alxayri. yàlla may na la bant macha allah. Mm-hmm. tu n'as rien à perdre. Mm-hmm. léegi nag euh, bu yàlla dogalee mu ne suba la alxayri moom programme suñu borom. Mm. mën nga ko mbébét sabatlu ko ki ngay bëgganteel sabat sabatlu ko mais tey mën na jàpp kon um am na ñu nekk ci bi. non man defuma rang. Ah. man su ma defoon rang embouteillage am. <laughs> xam nga rek man moom raawuma. raawoo quoi. waaw man moom je suis une personne boo xam ne man awma temps wu ay labatante waaw awma temps boobu. sama liggéey mooy sama lépp mooy sama amour mooy sama lépp parce que lépp lu may am sama liggéey moo ma koy comme euh, ko waxee sax góor moom bu ñëwee mottali rek. ñu jaamu ci yàlla comme yow nee nga amoo temps ay ramé kon boo demee ba wax loolu am na ci loo xam ne tey jii tamit ah, mhm. nekk nga ci loo xam ne tey bu paree. comme ni ko mhm. waxee. tamit mhm. quoi. waaw ku ne loolu ngay ñaan yàlla. Hmm. ku ne loolu ngay ñaan yàlla ci kàttanam waaw li li li Youssou naan bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu xoomalan gaa ñi bàyyee seytaane bàyyi ñu ànd ba day mel ni lew mm-hmm, kon yàlla nañu yàlla defal jàmm musal ñu ci ndog ndog musal ñu ci pexeb noonu musal ñu ci lépp loo xam ne rek day gar suñu yoon ndax borom bët bu réy bi mm-hmm. des fois nga waxtaan ak benn nit xëy suba ñu ne la dem na mm-hmm, ala xaal ah, lu waay di def na ko xool xool ci sa borom parce que man dama gis ne léegi kuy mere rek na mere sa xol waaw mm-hmm. ah, parce que lépp lu waay def nit rek. Mm-hmm. wala tey jii loo yéene nit rek euh, ñaanal yàlla xam nga am na lu ñu wax ci côté Euh, mbas mi ñëw. Mhm. am na lu ñu ci wax ci côté Amérique am na lu wax ci côté Chine et mhm. waaw li ñu yéene woon africain yi mu dal leen. Mhm. gis nga tubaab yi ñooy gën a moor ci mbas mi. kon lépp loo yéene néeg rek nit ki rek. yéene yéene néeg la borom moo ci fanaan kon euh, relation bëggeel nit mën na bëgganteeg yaayam mën na bëgganteeg ki muy bëgganteeg je t'aime tu m'aimes mën na bëgganteeg euh, gis nga sama sama jànk bi mu ngi nii. <laughs> Fatou moom dafa bëgganteeg. Ah, dëgg la tey ah, waaw gis nga amul sax si biir kër. amour du du question nit ki ki muy bëgganteel wala jëkkër wala jabar mhm. amour mi ngi ci yaay dafa nga jur ay doom yu bari mhm. am kenn koo xam ne sa biir xol mais danga koy nëbb yeneen doom yi mhm. kon amour mi ngi fépp yonent yàlla Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gën ñi mbindéef gis nga ni ko nit ñi bëggee loolu rek Saint Valentin la. Saint Valentin macha allah sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. tey daal defal naa la rouge noir. waaw bégal mbokku téléspectateurs yi bégal mm-hmm. sama ñi nga xam ne ñooy béggee umu saw. Mm-hmm. seen mbégte rek mooy sama bànneex ci <laughs> aussi kon rek ah, moom mbégte mooy bànneex ah, pour ñëpp. waaw ah. umu tey ban conseil ngay joxe maam moom weer bi. li ma leen di conseiller mooy <laughs> jamono metti na. bul gis sa morom am cheveux rek nga ne yow foog nga wax sa jëkkër mu jëndal la cheveux. bul gis sa moroom am chambre à coucher bu bees nga ne sa jëkkër fu euh, ñu doylu mm-hmm. bañ a nekk femme matérialiste ànd ak seen jëkkër yi ci ngor mm-hmm. ndax bu ngeen àndee ci ngor wéet gore wéetaliku gore sincère dëggu góor ñi tamit yërëm jigéen ñi mm-hmm. loo am yéene ko sa jabar balaa ngay génn ci beneen jigéen di ko gis di ko wàcc pet di ko may benn cinquante mille wala benn un million dëgg la mais nañu ñee sa jabar sa jabar na ko sagal ba pare. na nga ko sagal waaw na waaw nit ki déggoo ñu ne boo ñeewul aawam. Mm-hmm. kon pour mu takk la ñaareel du yomb. ndax nit tey balaa mu lay takk ngay nekk sax deuxième fois wala. Mm-hmm. war nga xool ka mu yor. Mm-hmm. wala ka mu yoroon ba wàcc ko sax ba lay jël booy nekk aawam. nam ko yoree woon c'est important. waaw nu góor ñi gën a yërëm jigéen ñi. ba pare di def ay câlin man j'aime bien câlin. ay câlin ah. waaw waaye ñëw këgg këgg yuuxu tel <laughs> mm. xam nga wax ji neex góor ñi dañu war a dundal mbëggeel Hmm. mbëggeel du jigéen rek moo ko war a dundal. waaw euh, ni jigéen war a joŋee tamit góor. góor dafa war a joŋee. Mhm. dafa war a am ay affaire yu sew yoo xam ne. Mhm. wax dëgg yàlla bu koy defaral jabaram wala mu koy defaral ki muy bëgganteel yu sew rek. Mhm. waaw toog sax une de temps allo chérie dama doon xool ndax yaa ngi si jàmm <laughs> allo. nga wax wax bu neex. après mu ne la I love you. nga ne ko I love you too. mu coupé nga coupé. allo. amour dama doon xool ndax yaa ngi ok ne la maa ngi ok mbaa dara jotu la. yooyu dafa baax. dégg ngeen Oumou mi ngi jox xale yi clé de bonheur nga jël say ah. tànku jëkkër xooj. Hmm. <laughs> jël xam nga rek. <laughs> machine yi xoos hmm. maase. des fois nga woo ko benn heure bi. Hmm. ne ko mu la ne sama mbagg bi day metti nga ñëw jël ci huile yu baax yi. yi may jaay. nga def massage. ko massage est-ce que wóor na nag jamono. à domicile. <laughs> nag eh. man nag sama góor di dem ci biti. Eh. à domicile. ah ah, ah dégg yàlla jàmmal mm-hmm, saw mm-hmm. digal naa ñëpp daal jëndi sama huile massage yi mm-hmm. Amazon baax di noddanti yaram ci ah, waxtaan ak moom mu wax ci xam nga tudd mbaacoo ah, mu rafet daal te jamono ji ñu gis showbiz bi umu dafa xaaw a def ni coow li bari na. Mm-hmm. ci Wally Seck waa euh, Sidi Diop. Mm-hmm. yow tey lan nga leen mën a wax comme tey ni nga toogee ne man sama digganteeg Mbathio ak Oumou Sow ban révélation ngay joxe ci ñoom. ah aar bi daal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar lu ñoo fee la force. nit juróomi baaraam yi ni mu wutee noonu la wërsëg yi wutee. Mm-hmm. nit mën na ñëw tey nga jiitu ko ci aar bi mu ñëw tey am ci loo amul. wërsëg jaam yàlla. Mhm. nañu yéenante jàmm bu ñu yéenantee jàmm rek ku nekk mhm. am sa réussite bopp man loolu rek laay wax nañu yéenante jàmm rek ñu ci des yëpp ay détails la. ok te ñu liggéey liggéey moo am solo boo liggéeyee rek jariñu. loo bëgg a faj di ko faj te doo ko yaakaar fenn lu dul sa ñaq. Mhm. man macha allah ku ma gis. ku mu saw li mu sol moo ko liggéeyal boppam. ku mu saw oto bi muy dawal moo ko liggéeyal boppam. Mhm. loolu moo am solo kenn du taxaw ne maa la jëndal oto kenn du taxaw ne maa la jëndal kër kenn du mhm. taxaw ne maa la jëndal sax euh, marchandise mhm. kon jigéen boobu il faut être une femme très battante il faut être une femme battante bu dee góor la nga gëm sa bopp di liggéey dëgg la macha allah gis nga waale day góorgóorlu di wàcc ay conteneur di jaay ay affaire kon nag macha allah ku nekk ca la nga nekk liggéeyal gëm sa bopp mooy taxaraw say maas d'accord <laughs> comme ni ko waxee liggéey gam sa bopp mooy tax a raw say mas te moom aussi ni mu ko waxee nee na moom lépp lu mu am moom moo ko liggéeyal boppam. kon yaakaar ne loolu noonu ah, royukaay la chaque jour rek li ma la wax moom porte de voix tamit. toog fii tamit di wax loo xam ne tamit ëllëg ku ko gis xam ne lii njëriñ la. est-ce que mën nañoo lan mooy ses projets fii Sénégal. sama projet Sénégal mooy dimbali taalibe yi ndax taalibe yi dama leen yërëm. Mhm. daara yaa ngi nii chaque jour. nga romb fa gis xale yi euh, pour ñu lekk sax problème la. Mhm. Euh, bu ma sañoon au niveau du gouvernement. Mhm. ñu am loo xam ne budget bu ñuy génne. pour daara yi di ko jàppale taalibe yi. Mhm. man moom incha allah samay projet moom. mooy képp kuy bon volonté. bu ma déggee na jàpp ci lii nga xam ne ne moom laay sumb. pour di dem ci daara yi di leen dooleel. man daal saw loolu laa bëgg ak pouponnière yi. ak euh, képp koo xam ne rek loxoom jotul ginnaawam social. Mhm. mais daal ci daara yi laa koy njëkkee incha allah ci kàttanu yàlla. loolu bokk na ci loo xam ne nañ ci sama mbébét la ak sama yéene. Mhm. d' accord comme ni ko déggee Oumou Sow nee na moom projet ah, pour ah, daara yi la moom la ko bëgg a ci ay waxam mais Oumou Sow ñu gis léegi jamono ji Covid bi. Mhm. reete na lépp. kenn kenn tëggatul kenn waayatul. mais Oumou loolu noonu en tant que yéen nga nekk ah, soutien de famille nan def ci yéen quand waa metti na nag parce que ñi nga xam ne ne tey instrumentrice lañ ñi mm-hmm. nga xam ne moo yor euh, guitare wala mu yor sabar mm-hmm. tey jii kooku loolu dina ko metti parce que moom bu woykat bi woyul fay ko du mën a dundal njabootam mm-hmm. xanaa woykat bi nekk woykat boo xam ne ne macha allah moom it jotoon na denc di jël ci li muy denc noonu di leen ci jàppale loolu rek a fi nekk mais ci ñoom la gën a metti Mm-hmm. mais tam moo tax ma bëgg man dama teel a comprendre loolu depuis xale. Mm-hmm. bi ma duggee ci aar bi. Mm-hmm. Euh, man bi may njëkk a jaay li may njëkk li ma doon njëkk a jaay Medina. Euh, ay saabu man damaa yàgg bëgg cosmétique saabu laa yëg euh, laa musa ibbi boutique Medina. di jaay sama papa di ma ko fayal. di ma fayal magasin bi. man damaa yàgg gëm ne aar boo koy def danga koy booleeg métier waaw léegi nag man yooyu la dugg ci saabu dem ci lait de corps mm-hmm. ba tey ji nga def sa entreprise mm-hmm. di jëlee ci dëkk yu mag yi ñu lay indil ngay mm-hmm. aussi tamit wax nga tamit lu lu am importance parce que dégg nañ sa biir wax nga ni aar ah, ah, dañ koy boole ak métier waaw waaw est-ce que tamit dañ koy boole ak business ak business waaw business parce que ah, aar rek métier rek métier la tamit ñuy waxtaan ci foofu noonu que ni comme aar dañ koy boole ak. business léegi nan ngay wax ñoo xamante ne dañoo bàyyi seen lépp pour art kese. li ma leen di xelal mooy suñ ko mënee boole ak business. wala gis koy business ñu dem mu jaay la en gros wala mu jox la nga jaay di verser man moom xoostu naa ci côté bu nekk. Mm-hmm. marché HLM bi euh, dem naa fa ca laamu boutique maa ngi koy nuyu de passage. Mm-hmm. Euh, yàgg na ma ràng ay affaire Mhm. may dem di jaayaat di si am ay deux 2000 francs ay 700 francs ay mille francs ay mhm. tissu yoo xam ne dama ciy am mille mhm. ku dëkk yàlla ci loolu laa góorgóorloo dem ci kii yu ndaw natt yu ndaw yi boo teggee dem jënd yooyu la mais góor ñi mënuñu loolu góor ñi li ñu mën a def mooy business rek. waaw ah, nañ business daal bu ñu businessee ñu am dara. parce que Covid bii moom wax dëgg yàlla yéen nag ku ne. c'est ça te di denc di di épargner tuuti. épargne bi nag méttiwul même bu dee sax. 10 000 20 000 sax. épargne la par mois lu ñu amoon ci ay minutes jeex na parce que waxtaan bi neex na bëgguma ko woon dog sax parce que toog ak Oumou Sow di waxtaan ak moom dafa may neex. léegi du ñu def lu euh, lu dul rek jox la kàddu yi euh, nga tàggatoo ak euh, ñu lay bëggee. waaw macha allah xam naa ne maa ngi tàggatoo tàggatoo bu dul tàggatoo. Mhm. di kontaan ci ñi nga xam ne ñu ngi may encouragé ci internet bi ñu ngi may encouragé ci sama émission Oumou Sow aw seen fay ndax nag tamit di def dara. réew mi bëgg ko nga nekk ci xolu sénégalais yi loolu yombul looy def nit ñi di la ci défendre ah di la waxal lu baax di wax ak say qualité ah wax dëgg yàlla tey Saint-Valentin bi maa ngi koy may képp koo xam ne nekk euh, bëgg nga Oumou Sow soppeem nga clientam yi nga xam ne ñu ngi ñëw di jënd samay lait de corps ah di am ay teint yu rafet ah anti tache yeeg yëpp samay clientes yu fidèles ci man bëgg Oumou saw depuis 15 ans maa ngi ci cosmétique ci côté yaram cere yeeg tache bouton yeeg yëpp macha allah ngeen wóolu ma wax dëgg yàlla di ma indil yeneen i cliente aw ma seen fay. maa ngi leen di souhaiter euh, happy Saint-Valentin euh, di ko souhaiter sama famille di ko souhaiter képp koo xam ne rek bëgg nga Oumou Sow di leen ñaanal yàlla na Sénégal am jàmm ah yàlla na réew mi am jàmm maa ngi leen di ñaanal jàmm merci beaucoup je vous waaw mbokk internet euh, dakar net euh, point com yi yaakaar naa li leen ànd tey neex na te ndaanaanal leen dalaloon muy Oumou Sow aussi tamit di ko gërëm di ko sant euh, ci facilité bu mu def parce que bu ko wooyee dañ ne yéen moom mënu ma leen a ñàkk bañ a gàntal waaw di leen wax rek ëllëg dig daje ak beneen émission incha allah ak beneen daanaan lay dalal.